bismillah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara eh, di leen ndokkeel bu baax a baax di jiital ci ziyaar bi nag Cheikh Sidil Muxtaar ñu ngi ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te may ko wér mook mboolem njaboot ak borom Tuuba ga yëpp bokk yi yéen yéen ñi baaxoo ànd ak ñun seen sit eh, internet eh, istikhama point org ñu ngi leen di indil màggalu Serigne Omar Bousso Serigne Omar Bousso nag doon caatam sëriñ Busoobe ñu koy ñaanal di ko fàttaliku fii ci Gédé waaye ànd kooku xalifaam bu tedd bii di sëriñ Amdi Moustapha Bousso ak mboolem njabootug sëriñ Omar Bousso bi yépp bokk yi bis bi nag niñ ko baaxoo di defee xëye nañ ko njàngam alxuraan ak ziyaar yu am solo yoo xamante ne bii fu ci nekk bokki taalibe yi ak bokki jullit yi jóge nañ fa waaye rawatina njaboot ak borom Touba gi nga xamante ne bii ràññee nañ leen ci bis boobu Yeah. Euh, jërëjëf mbokk yi comme niñ leen ko waxee woon léegi rek euh, mboolem njaboot ak Serigne Touba gi ñëw nañ ci bis bi nga xamante ne bii moom la ñuy fàttaliku Serigne Omar Bousso di ko ñaanal euh, njaboot ak Serigne Touba gi nag ràññee nañ ci ki ngeen jàkkaarlool nii di Serigne Sidi moom Serigne Abdou Khadir teewal teewaale fi mboolem njaboot ak Serigne Abdou Khadir yëpp kon noonu lañ koy wéyale rek ci bis bi nga xamante ne bii mooy màggalu Serigne Omar Bousso ñu koy amal fii ci Guédé. sëriñ Sidi moom sëriñ Abdou Khadr euh, ginnaaw bu mu jógee ci sëñ Amdi Bousso mi nga xamante ni mooy xalif bi euh, mi ngi noonu nag jëm ci benn néeg boo xamante ne euh, sëriñ Fallou moo ko joxoon sëriñ Omar Bousso di néeg boo xamante ne bu mat la moo tax kilifa yi bàyyi nañ fi xéewal goo xamante ni bi saa su nekk rek. bokki jullit yi ak bokki taalibe yi ñi ngi koy barkeeloo waaye loolu tamit wane na ne diggante Serigne Omar Bousso ak Serigne Fallou euh, seen diggante euh, ku ne xam na ne amoon na kóllëre gu yaatu gu ci amoon moo taxoon sëriñ Fallou bi mu génnee ci néeg boobu rek daal di koy jox sëriñ Omar Bousso moom ngeen gis noonu Serigne Sidi moom Serigne Abdou Khadir nekk fa ginnaaw bu mu ziyaaree nag di fa ñaan kon ñoo ngi ñaan suñu borom lépp lu ñu fa ñaan suñu borom nangu ko ci barke borom Touba kon bokki dañuy programme bi rek ngeen ànd ak ñun ci euh, bi nga xamante ne bii mooy màggalu Serigne Omar Bousso dañ koy amale fii ci Guédé te ànd koog waa Istikhama point org lépp loo xamante ne bii programme la bu fi bàyyi ko rek dana leen ko gën a leeral ci biir reportage bi. bokk jullit yi bokk taalibe yi kooku ngeen seen mooy Serigne Cheikh Baara abdu Karim imaamu Guy Mbind ànd ak waa Guy Mbind yëpp dikk nag ci am di euh, buso di indi ziaram euh, ànd kook waa Guy Mbind yëpp kon bis bi euh, niñ ko waxe woon léegi rek am di Moustapha bis bi ànd na kook njaboot ak Serigne Touba gépp kon ba tey ñu ànd ak Serigne Abdou Karim ci ziar bu am solo boobu jërëjëf euh, mbokk yi kon niñ ko waxee woon rek gis ngeen njaboot ak Serigne Aliou Bousso Serigne Aliou Bousso nag mook sëriñ Omar Bousso euh, ñoo bokk lépp. kon mu mel ni tamit euh, njaboot ak Serigne Aliou Bousso bis bi seen bis la gis ngeen leen noonu ci bis bi ñu indi seen ab ziar ànd ak waa kër sëriñ Omar Bousso bis bu tedd boobu kon bis bi wane na ne bisab Serigne Aliou Bousso la waaye bisab. képp koo xamante ni bii as askanoo nga ci Serigne Bousso bi kon ba tey rek ziar yi nga xamante ni bii euh, moo am ci bis bu tedd bi ñuy fàttaliku Serigne Omar Bousso moom ngeen ànd ak ñun nii ñu leen koy euh, wan ci li nga xamante ni bii moo jëm ci bis bu tedd boobu di bisu Serigne Omar Bousso. jërëjëf mbokk yi gis ngeen noonu ba tey rek ziar yi nga xamante ne bi kilifay Mbusoobe yi ñu ngi koy ziare sëriñ Amdi Buso xalifab sëriñ Omar Buso kooku ngeen gis noonu mooy sëriñ Cerno xalifa xalifab sëriñ Afia Buso moom it mi ngi noonu ñëw di indi ab ziaram ñoo ngi koy ziar baax waaye tamit di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te mooy ko wér moo ko njaboot ak uh, waa bi yëpp uh, kon bokk yi rek bis bi mbooleem njaboot ak waa Mbusoobe gis ngeen leen noonu ñoom ñëpp ñëw nañ ci bis bi ànd ak Serigne Amdi Moustapha Bousso mi nga xamante ne bi mooy xalifab Serigne Omar Bousso ci bis bu tedd bi nga xamante ne bi moom la ñuy ñaanal Serigne Omar Bousso di ko ci fàttaliku kon bokk yi uh, bis baa ngi noonu bisu ñaan la bisu jokkoog bokk la waaye bisu saafonte bokki jullit ak bokki taalibe yépp la gis ngeen sëriñ Amdi Moustapha Bousso mi ngi noonu ba tey taalibe yi fu nekk euh, ñu bàyyi fa bàyyi koo fa ci biir réew mi bitim réew ngir ñëw ci bis bu tedd bi nga xamante ne bi mooy màggalu sëriñ Omar Bousso jërëjëf euh, bokk jullit yi bokk taalibe yi mu mel ni euh, mboolem njaboot ak Bousso bi yëpp teew nañ ci bis bu tedd bi euh, xam naa ginnaaw loolu nag dañuy jox sëriñ alaaji Bousso mu indi ay kàddu siyaare ci bis bi bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa moolana muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmahin asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bokki jullit yu ñu seetaan yu nuy déglu ñu ngi nuyu ñëpp di leen siyaare bu baax di leen ndokkeel ci bis bu tedd bii nga xam ne moom daje fii ci Gédé ci pàkk bu tedd bii di kër Serigne Omar Bousso di màggal bis boo xam ne bii ki ko ki ñuy màggalal ku mat a màggal la sàkku ngërëmul ko xam ne kii ku am ngërëm la te képp ku yàlla gërëm ku mu gërëm nga am ngërëm te moom ku ne xam na ne Serigne Omar Bousso mi ñu defal bis bi tey am na ngërëmu Serigne Touba kon am na ngërëmul ay bokkam yëpp itam am na ngërëmul dëkkandoo yëpp itam am na ngërëmul taalibe yëpp kon nag képp da nga am ngërëm te it képp koo xam ne kii yëngu ci bis bi ah bay boo rafet njot bu baax a baax ti mën ngi ci am saxantu daale nii bis la boo xam ne bii nag sëriñ bi ñu ngi koy def di ko wooteel sëriñ Omar Bousso mu nekk kenn ci njabootu sëriñ Bousso bi di kenn ci jawriñu sëriñ Touba yi nga xam ne ñoo taxawoon fii nekk fi di liggéeyal yàlla yonent bi sëriñ Touba ci njaboot gi ak ci jullit ñi ak ci bokk yëpp te doon koo xam ne ki jàmbaar la doon jàmbaar lislaam la jàmbaar bi nga xam ne ji ku nangoo liggéey la woon ku yar ak taalib bi ay taalibeem yar ak njabootam ci xam-xam ak diine ak nangoo liggéey képp nag kon moom kenn xamu koon ci benn caaxaan bu lu rek dëggu ak nangoo liggéey ak nangoo jaamu yàlla ak bëgg mbokk lool te taxaw ci taxaw ci lool tabe lool amu yëg lu am yite lool nitu diine koo xam ne kii rek royukaay la boo xam ne bii bisam am na solo loolu di fàttali ku mel nii bis bi nag li ci fàttaliku ki mooy du ay xarbaax kese waaye nag lam doon mel doon ko jëfe doon ko waxe loola mat a roy kon fàttali ko ay sëñ Amar Bousso mais fàttali ko lislaam fàttali ko sëñ Amar Bousso dafa mel ni mooy jàng alxuraan fàttali ko itam mooy demee ne mooy jàng sunna te itam mooy jàng hadis te kon fàttali ko sëñ Amar kon am na solo lool bind la boo xam ne ku ko def rek yaa ngi jël bind ci bind ci bind lislaam yi leçon bu am na solo ci lislaam kon ñaan ci barke suñu Tuubaa ñëpp ñu fi daje yàlla defal lañ ci ngërëmul sëriñ bi jaayit ak ci baatin képp fi ñëw yàlla fàccee aajo euh, yéwé na seen mbir yëpp àdduna ak àllaaxira jégale moo say bàkkaar te am ci yaakaar bu baax a baax ci dem ndax ku baax képp ku yëngu ci bisam rek loolu ne xëy na ci barke suñu waa jërë ngeen jëf euh, jërëjëf euh, sëriñ Alaaji Bousso ci kàddu yu am solo yooyu ñu ngi leen ñaanal suñu borom euh, gën a dëgëral xam-xam bi gën laa sàmm waaye naka noonu tamit gis ngeen sëriñ Moustapha Alaaji Bara ñoo ngi koy ziyaare bu baax a baax gis ngeen ko noonu tamit ci bis bi waaye tamit wane na ba tey tamit diggante Serigne Fallou ak euh, Serigne Omar buso waaye tamit wane na diggante Serigne Baara euh, ak Serigne di Bousso loolee doon lu am solo loo xamante ne bi dox na diggante kilifa yu tedd yi kon Serigne Moustapha moom Alaaji Baara ñu ngi koy ziar baax gis ngeen ko noonu mi ngi noonu ci bis bi euh, ñoo ngi koy ziar di ziar njaboot ak Serigne Fallou gépp jërëjëf euh, kon bokk yi nga xamante ne yéen a ngi ànd ak ba tey ci màggalu Serigne Omar Bousso euh, ginnaaw Serigne Moustapha moom Alaaji Baara nag ginnaaw bu mu ñëwee nag gis ngeen néeg bi nga xamante ne bi moom leen doon wax léegi ci la Serigne Sidi moom Serigne Abdou Khadir doon ziar moom it bi mu ñëwee mi ngi nii di ko ziar di néeg bu boo xamante ne ay jeexit la yoo xamante ne bi mag ñu baax ñi bàyyi nañ ko fi. Euh, jërëjëf euh, Serigne Moustapha euh, xam naa bi mu jógee foofu nag ci la ñëw ci soxna Aminta Bousso mu mel ni tamit moo mag ci njaboot ak Serigne Omar Bousso gis ngeen ko noonu Serigne Moustapha moom Serigne Alaaji Baara di ko ziar ak mbokki jullit yëpp waaye naka noonu tamit am na ay kàddu yu am solo yoo xamante ne bi Serigne Ibrahima Bousso yëkkati na ko fa. aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mu ngi mel ni kon ñi ngi fii ci soxna Aminta Omar Bousso di taawub sëriñ Omar Bousso di ko kilifa gu mag goo xam ne si ne bis bi tey ji ñëpp di ko woote tey lépp yàlla mi ngi ko jaarale ci moom ci mbaaxu yàlla ci moom la ko yàlla jaarale ba di lépp xew mu tàmbalee woon ko nag ci togg ay laax ak jàng alxuraanul karim di ko jàng di ko def ci ndigalul nag kilifa yépp ci ginnaaw bi ci la woy juróom bu jigéen ci soxna Seyna bu Kebe mi nga xam ne Serigne Touba moo ko fi andi woon ci leen ci jox ndigal jox ci ndigal rakkam ju baax ja nekkoon premier xalifa Serigne Omar buso muy Serigne Cheikhouna Bousso mu ñëw fekk si ko fii kon di ko màggal. kon boog ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax taxawaay bi ak lépp yàlla yàggal ko may ko wér may ko mboolem rakkam yi may ko Cheikh Moustapha mii nga xam ne tey jii moo fi Serigne Omar ak mboolem rakkam yi li commencé Cheikh Moustapha ba Cheikh Abdoul Ahad ñépp ñu ngi leen koy ñaanal bu baax a baax lii daal kon kon daal lii daal moo fi nekkoon di ko siyaare tamit euh, euh, euh, doomu leeram yu baax yi nga xam ne si ñoo fi nekk. muy sëriñ Moustapha Bousso ak sëriñ Ibrahima Bousso kon mi ngi fii daal taalib bi yëpp wër ko di ko siyaare bi ngir jëmi yàlla ak yonent bi ak jëmi Seydina Omar ñu koy ñaanal bu baax yàlla may ko wér defal ko xéewal ci barke Cheikh Ahmadou Bamba wasalaamaaleykum wa jërëjëf bokk jullit yi bokk taalibe yi ginnaaw ziar yu am solo yooyu euh, ñi ngi fii nag ci sëriñ euh, Bada Bousso bokk ci njaboot ak euh, sëriñ Omar Bousso gis ngeen ko noonu tamit moom it ziar yi mbokk jullit yi ak mbokk taalibe yi fu nekk ñu bàyyee ko fa ñëw di ko ziar waaye ginnaaw ziar yooyu sëriñ Bada Bousso am na kàddu yoo xamante ne bii joxe na ndigal ñu yëkkati ko fi. alhamdulilah wasalaatu wasalawaatullahi wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabi wa man wala mbokk yi inni uxaatibul jamil musalliyan ala rasul musalliman ala alwasul bi xisbihi fi kalimi ginnaaw loolu mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bi ñu jiitalee sant suñu borom julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñu dellu di santati suñu borom bu baax ci eh, Sëriñ Tuubaa mi mu ñu booleel di am mbégte ci sant kooku di ko fàttali ci suñu kër maam ju baax ji nekk ci kanamu suñu ay kilifa eh, eh, xanaa damay tàmbali di tëjil rek sama mbokk yu baax yi ci samay nijaay ñu yëkkati kàddu yu rafet yi nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg ñu jotte ko ci bis bi ci bis bi nga xam ne ci lañuy mooy bisu suñu maam ju tedd jooju xanaa damay jox eh, suñ mamoor damay jox suñ mamoor mu jot li kàddu yi rek Eh, bu ko defee ñun ñëpp ñu teewlu ca fas yéene jariñu incha allah nañ fi dégg njariñ luñ mën a jariñoo jërë ngeen def. waaw ñu ngi nuyu mbokki taalibe yëpp ci turu sëriñ Aliou Bousso euh, bi ñu nekk fii ci këram du leen siyaara di leen ndokkeel ci bisu jàmbaare lislaam jooju nga xam ne mooy sëriñ Omar Bousso sëriñ Omar ku ne xam na lim bokk ak sëriñ Touba ndax. Euh, Euh, ñoo bokk lépp ñoo bokk waajur ba pare mu wëlbatiku nekkoon ci kappaaram di liggéey ba am ngërëm góor yàlla yi nga xam ne nii ñu àndoon ak Serigne Touba liñ am rek loolu la am te loolu ku ne xam na ne euh, ku am ay bët di xool teg nga ci teg nga ci sa bët ci li ko yàlla fayee ci ay njabootam ñoom ñëpp ñu nekk ci lu baax ak ci lu jub euh, bis bi nag bisu ñaan la bisu fàttaliku bisu sàkku ngërëmul yàlla te ñaar ñu ànd di ci def. ku ci ku ne na ci doxee rek na ngay gis na ci rawee sa moroom kon bis la boo xam ne nii euh, commencé nañ ko ci euh, bisimilah rahmaani rahim fas yéene ko eggale ci alhamdulilah ndax ci suba ba léegi ñu ngi fiy jàng ay alxuraan ak ay xasida te noonu lañ koy continuer ba ba jant bi so ñu ngi ñaan nag euh, ci barke sun góor yàlla googee du sëriñ Omar soo lépp loo xamante ni def nañ ko ci sàkku nañ ko fi ci aw yiw mu taas ñu ci barkeem te defal ñu ci saxaadatu daara yi suñuy kàddu nag du ci bari ndax dañoo nekk suñu kanamu kilifa waaye daal nañ xam ne ki ñu am euh, buñ ko yemale ak dara nañ ko def muy suñ royukaay nañ ko def muy suñ dëgërlaay te lépp luñ ci xëy suba ba ngoon di ko ñaan ci moom suñ borom ñu ko defal euh, kàddu yi nag du gudd dañuy jox sëriñ siit yi mu sëñ bara boo defee mu jot la ci ay kàddu moom it ci turu sëriñ bi rek bismillahi min shaytaan rajim bismillahi rahmaan rahim ñu ñuy mbokk julli dee mbokk taalibe sànni ci kàddu yu gàtt rek ni ko mbokk yi waxee naa bis bisu ñaan la ak bisu fàttaliku sunu góoru yàlla bu naa Omar Bousso suba ba tey bi ñu xëyee xëyee nañ fi jàng alxuraan tuus ay xasiida ak saatu xala nabi e, ñaanal ko yàlla yool bi fekk fa mu nekk mboolem njabootu Sëriñ Tuubaa ko fekk njabootu Sëriñ Bousso bi xanaa kàddu yi sant rek ak santante ngir ni ko sëñ Mamour wax ak sëriñ Saliou rek Seydina Omar Bousso léppam da ko joon jox ko sëñ Touba ñun ñi nga xamante si ñoo topp ci ginnaawam ak njabootam dañu jël lépp jox Seydina Omar bu ñu ko defee dañu am lañu bëgg ndax sëñ Touba sëñ dafa jëloon addunaam euh, ak àllaaxiraam lépp jëbal sëriñ Touba moo tax yàlla fayee njaboot gi ñoom sëñ Touba la ñuy moo waral bis bii ñu taxawal ko ngir ñaan ak fàttaliku sëñ Omar ñaan ku fi teew rek sama borom faj sa ajo ñu sëriñ bi tamit mi ngi sant ñëpp mboolem taalibe yi nga xam bi ñu xëyee ba tey ñu ngi jàpp ci liggéey bi di jàng di berneel gan ñi ak mboolem mbokk yi fi teew sëriñ baa ngi leen sant di leen gërëm di leen ñaanal ñu yàgg fee ñëw yàgg fee fekk te at mu ne bu ñu ñëwee at mu ne dàq at ma jóge ci daraja sëriñ Tuubaa daraja si naawam war sant lañ baax jërëjëf صلي على من جاء خطب الوجود بنا الغالي زلنا وزوجي وكريمي jërëjëf euh, bokk jullit yi ginnaaw bu ñu jógee ci sëriñ euh, Bada Bousso euh, ñu ngi koy ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te kàttanal ko ñi ngi fii nag ci kër sëriñ Mbacke Bousso sëriñ Mbacke Bousso imam ñi ngi koy ziare bu baax a baax gis ngeen sëriñ Bayla Diop bokk ci waa kër sëriñ Mbacke Diop Kalsaan doon ko ziare ànd ak bokki jullit yi ak bokki taalibe yépp kon euh, bés bi mi ngi noonu mbooleem njaboot ak euh, Serigne Omar Bousso rek euh, fépp foo xamante ni bi ña nga fa ñu ngi leen fay fekk di leen ziar naka noonu tamit di ziar bu baax a baax Serigne laa Diop mi nga xamante ne bi dafa bokk ci njaboot ak Serigne Mbacke Diop Karsane doon indi ab ziaram ànd ak waa kër Serigne Mbacke Diop Karsane gépp jërëjëf euh, bokk jullit yi bokk taaliba yi ginnaaw euh, ziar yi nga xamante ne ñi ngi ko doon amal nag ci njaboot ak Serigne Omar Bousso gi dañuy ñëwaat nag ci kër euh, Serigne Amdi Moustapha Bousso mi nga xamante ne bii mooy xalifab Serigne Omar Bousso fekk fa nag njaboot ak Serigne Touba gi yëpp ñoom it ñu ñëwaat di ko ziar ci bis bi ki ngeen jàkkaarloo noonu nag mooy Serigne Moustapha moom Serigne Abdoulahat ànd ak mboolem njabootu sëriñ Abdou Lahad gépp eh, dikk fii ci bis bi eh, di indi ab ziaram ci kanamu sëriñ Amdi Moustapha Bousso kon loolu ba tey li ñu waxoon rek ne bis bi eh, sëriñ Amdi moom Amdi Moustapha Bousso ànd na ko njaboot ak sëriñ Touba gépp kon xam naa dañuy ànd ak sëriñ Moustapha rek ci ziar bi nga xamante ne bii mi ngi koy ziare sëriñ Amdi Moustapha Bousso. jërëjëf bokk yi ñu wéy ci ziar yu am solo yooyu rek eh, niñ ko waxee woon léegi rek ba tey njaboot ak sëriñ Bousso bi yëpp ñëw nañ gis ngeen sëriñ Mamoun Bousso noonu eh, di joxe ab ziaram ci kanamu sëriñ Moustapha Bousso waaye tamit teewal fi njaboot ak sëriñ Mbacke Bousso gépp eh, kon sëñ Mamoun ñoo ngi koy ñaanal bu baax a baax moom it suñu borom kàttanal ko ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni bi moom lay taxawee ci dëkk bu sell bi di tuubaa kon ba tey rek ñu wéy ak ci ziar yu am solo yooyu. ci sëriñ bu su ànd ak njabootuk sëriñ bu Bousso ci bis bu tedd boobu ñuy fàttaliku sëriñ Omar Bousso di ko ci ñaanal jërëjëf mbokk yi mbooleem rakk yi Serigne Amdi Moustapha Bousso yëpp ànd nañoo moom ci bis bu tedd bi waaye naka noonu tamit ñu wéy ba tey ci njaboot ak Serigne Touba nga xamante ni bii teew na fa kooku ngeen jàkkaar loolu mooy Serigne Abdou Lahad moom Serigne Soyobou teew fa teewaale fa njaboot ak Serigne euh, Soyobou gépp gis ngeen ko noonu mu yëkkati ay ñaan jëmale ko ci bokk yi nga xamante ne bii ñoo daje woon foofu ci barab bi kon loolu ba tey wane na ne bis bi Serigne Amdi Moustapha Bousso ànd na koog njaboot ak Serigne Touba gépp sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala xaadil amin sayidina mawlana muhammad wa wa sahbihi sant yàlla bu baax baax julli ci yonent bi salaa salaam di bu baax ci bis bi ni ko defee di fàttaliku jëmm ji tedd si naamar bu so ñaan yàlla suñu borom yokkoy leeram taas si barkeem ñu yàgg ko ñaanal di leen nuyee kilifa tedd yi fi teew di sëñ xaadim ba si sëñ xaadim mbàkke moom si moom si abdulaat ak sëriñ Mourou Mbacke moom si Moussa Absa ak sëriñ Mbacke Ndiaye moom suñu Ousmane Ndiaye moom suñu Daaru Assane Ndiaye ak sama wëllër yi El Hadj Diallo ak jubiteef ñëpp ñu leen sant bu baax baax ñu jox kàddu yi sëriñ Mourou Mbacke am nañu ci sànni yooyu wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baad asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu nuyu mbokk yi fi taw yëpp di sunuy bokk di nuyu bokk taalibe yëpp di siyaare sëriñ su si fi toog di sëriñ xaadim moom sëriñ Abdou Lahad di siyaare sëriñ Bousso bi ma nga xam ne moo nu andi ci bis bi di sunu xarit di sunu wóolare di sunu lépp sunu borom dogal bis bi ñëw ñu fekk ko ñëw ànd ak moom bis bi te yàgg nañ ko def at mu jot ñu am ci ay xarit ñëpp dañu ñëw teew ko ngir wan ko ne ko lépp loo mën a nekk dañ ci ànd ak yow di sant yàlla bu baax baax ndax bis ndax bis yu mel nii di bis yu diine képp koo xam ne yàlla dogal na nga fekk ko day mel ne man ngaa rafet njort ci ne yërmaande yàlla mi ngi wàcc ci yow waaw wa inda zikri saalihiina tanzilu rahma waxtu woo xam ne ñu ngi fàttaliku nit ñu baax ñi yërmaande yàlla day wàcc ci ñi nga xam ne ñooy teewe bërëb yu mel noonu kon képp koo xam ne teew nga fi war ngaa rafet njort ci ne yërmaane yàlla mi ngi wàcc ci yow ndax sëriñ Omar ku ne xam na ne jëmm la joo xam ne nii dafa jeexal léppam ci sëriñ Touba di mbokkam di léppam léegi nag ñi nga xam ne ñooy ñëw ci bërëb bi eh, la naar ba waxoon sëriñ bi kullun bi nisbati ma yuxaawilu xassahu min xuuti afidatin wa xuuti jusumi xuutul afida yaakaar naa ndaje ndaje mu nekk lay mën a amee waaye ndaje ndaje ndaje mbuso bi loolu dafa yomb ñam ñam yoo xam ne dañ koy togg ba nag joxaat ko nit ñi jëfandikoo waaye bu fekkee da soxla loo xam ne day dundal sa ruuxit da nga ko fa da ko fa mën a jële ci ay fàttali ci ay waaraate ci ay gis yoo xam ne day delluwaat ci diine kon képp koo xam ne yaa ngi ñëw da ngay am yéene ci ñaari yooyu waaw fas yéene berne wu waaye boo berne ba noppi nga mën a nekk di dolliku ci sa xol ci ci ci ay leer yoo xam ne nii ba delloo fa nga jógee da nga ko mën a yóbbaale ñuy sant yàlla bu baax a baax ndax sëñ bi sëñ bu soobu nii nit ku baax la koo xam ne nii ba ñu ko xam xamee ba léegi wax dëgg yàlla gisuñ ci moom lenn lu ñuy sikke xam naa yoonu sëñ Omar jaaroon sëñ am di nampatal ko ci ci yoon yoonu rek la jaar loolu it la ànd ak moom ndax jikko mooy lépp te jikkoom rafet na kon ñu ngi leen di seeral di seeral li ñu fi teew ñëpp ne nit ku baax la nit ku nit ku nit ku jaar la ci yoon wa nga xam ne moom la imaam bëggoon loolu moo tax ñu ñëw ànd ak moom bis bi ñu ngi naan bu baax yàlla doole ko kàttanal moo ay magam ak rakkam ak ay waajuram ñu fi teew ci ay bokki bi yëpp yàlla doolu leen dimbali te defal nu tawfeex ñu fekk ko at yu bëree bëri asalaamaaleykum wa rahmatullah ñi ma Six من يساسع ما يريد دل ما يريد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 والسلام وبركة يجعل بها قصائد المولدية من عام أكسس أحب إليه من كل ما أحيت به ليلة مولد المحمدية ويومه أبدا فيد الباقي فيد الباقي الطارق في مولد خير الخلائق اللهم يا أكرم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه الصلاة والسلام البيت الذي كبرت في هذا يوم المولد عام عكسز يقيني إلى الجنة ما ليس يحمد رسول كريم بين تناسى سرمدا رسول سفيع في البرايا محمد محمد المختار لا خلق مثله لأمداه قطور والعود أحمد أتاني بإذن الله جمت هباته بصير حبيب والأسى قبل مغمد لقد جاءني في البر سفخ بالوراء على كل مخلوق في الخلق تسند لقد جاءني في البر سفخ بالوراء على كل مخلوق به الخلق تسندوا مديحي رسول الله لي فوق مطلبي ولي ليس ينفو رواس مفند ودا وشكور على النبي رسولا كريما مثله ليس يولد لقد مان من صلى مقفى محمد يحاكي وليدا قال سيولدون دعاني إلى مدحي سفيعي محمدا أماني ومن لم يهوني فهو يطرد علمت لدى الأبرار قفى سيد الخلق المفرد علمت لدى الأبرار والبر والملاء بأن المقفى سيد الخلق المفرد البشرى لمن دام يسجد مدحت الجواد الباسل البحر مسبدا ومن جوده علم وأمن وعسجد صرمدا بدا مغبل القبر الذي ليس يسجد كريم إذا واجه تفوق خاد للمنى ببشر وتأمين ومولاي أعبدون دينه المباء وخاب الذي ربا وليس يعبد شكري لربي بمقتداه محمدا عليه سلام الله ما دام يحمد سكوري لربي بامتداه محمدا عليه سلام الله ما دام يحمد